bismillahi rahmaani rahim salaamun minallahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki talibe yi ñu ngi leen nuyu waat di leen siyaare ci barab bu tedd bii di barabu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké jëw di nuyu sëriñ Touba sëriñ Saalihu Mbacké yàlla na fi yàgg lool tànn ko wér moom mboolem ay rakkam ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ko yéene liggéey boobu yi nga xam ne mi ngi koy liggéey sëriñ Touba Seexul Xadim am lu kawe njort lépp naan ko ak moom ne tool yi nga xam ne mooy tool yi penku yi dëgmal nañ waxtu wi nga xam ne ci lañ ko daan woote ngay wër koo góob tool yooyu nag mooy tool yi xelkoom Touba xelkoom ca la bokk daaru salaam ca la bokk daarul xudus ca la bokk daarul muhin ca la bokk daaru sakaro ca la bokk ñii ma toogal nag ñu njabootug Serigne Touba di njabootug Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñëpp ràññi leen ci kër yi ak seenu taalib ak seenu woyof ñu ànd ak taalib yëpp liggéey bi ñoo nekk nit sama ginnaaw feggoog Serigne Saliou Ndigal Thioune moom Serigne Béthio Thioune moom Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Ndigal Thioune mi nga xam ne ndigal rek lay déglu te bi waxoon ne ndigal ak ndimbal ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan saa bu ndigal jógee ndimbal topp ci ginnaawam kon ndigal loolu lay déglu waxtu wane saa su ne ndigal loolu nag déggati na ko ci ngóob mi nga xam ne ngóob mu yaatu la suñ borom cërale na ko nag mu fas yéene dem mook njabootam ci Touba Xelkom fa la fas yéene dal ànd ci liggéey bi nga xamante ni moom la sëriñ bi santaane muy ngóobum Xelkom mboo na ci nag mbooleem koo xam ne soppe la di xarit di ànd jàmm di wëlre rawatina njabootug sëriñ Béthio ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci di ay gan ñi ci day dëkk moom nag tàngamdul kenn kenn ku nekk jox na ko loxoom ngi fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu Serigne Saliou Mbacke bi nga xam ne waajuram àndoon na ko Serigne Saliou tey ji fekk ko ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke samedi bi nga xam ne mooy ngóob mi day dëppoog le 24 ci weer wi ñu nekk muy le 24 octobre waaye nag dañoo bëgg le 23 bi di ajjuma ñëpp fanaan ñi Touba Xelkom su ko defee bu ñu xëyee nag mën a dal liggéey bi mu mën teel a yegg ci jàmm salaam defe ko nañ ko daan defee kon ñu jox kàddu gi sëriñ Babacar mbay mi nga xam ne mooy jëwriñ universel Jannatul Mahwa sëriñ Babacar bismillah liggéey boo xam ne sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Saaliw da koo jox sëriñ Saaliw ndigal suñu sëriñ muy liggéeyu koom muy liggéey boo xam ne bu nu yàkkamti bu nu namm bu nu bëgg ci suñu xol boo xam ne itam xam nañ ko ndax jaar nañ ca jaarati ca sëriñ euh, Seex woo sëriñ Saaliw jox ko ndigal nu war ànd ak moom liggéey boobu liggéey bi nag moo tax nuy wax te di ci woote di ci woon ak bépp taalibe bi boo xam ne sëriñ Saaliwu Cuun mooy sa sëriñ mooy sa bunt ci sëriñ bi di jëwriñ di jëwriñ universel di mbokkam taalibe bi di dëkkandoo boo xam ne ndamal sëriñ Saaliwu yéene nga ko ndam sa ndamam muy sa ndam ñu ngi lay woo ci liggéey boobu fas nañu yéene fépp fu taalibe bi sëriñ Saaliwu nekk moom moo moom sëriñ Béthio ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen mu ngi leen di woo ci liggéey boobu ndax fas nañ ko yéene tàmbali muy ajuma lan fas yéene nun ñëpp képp koo xam ne yaa ngi wéyee ndigal te ndigal sëriñ saa sëñ Saaliw mii di sa ndigal jot nga ndigal ci dem xel koom dem dem Touba Touba xel koom mooy dal ba foofee moom fa lay nekk kon nag noo ko yëgal ñëpp te di ci woo mbooleem nag ab bem moo xam réew mi moo xam bitim réew jëwriñ yi jëwriñ universel yi sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn nañ leen ko waaj bu baax te waaj ko nag nan ko daan waaje ndax kat bu ñu daan dem xel koom dañ daan mel ni kuy tuxu ndax euh, euh, bi bi ñuy dëkk Touba loolu nu sëñ bee ca waxoon dane bu ngeen dem bu leen fi bàyyi kenn gone guy nàmp sax na ngeen ko yóbbaale jigéen ñi nga xam ne sax dañu toll ci seen weer sax dañu leen daan yóbbaale xam ne ñu bari mucce nañ fa kon nam mu daan demee rek noonu rek lay demee ndigal la yeesaan na sëñ Seex yeesal na ko ñu ngi ñaan mu yàgg fi te ndax nam mën nañ ko lool nam mën nañ ko lool kon nan leen nañ leen fagaruwaat nañ leen dolli positif bi nañ leen dolli yaakaar ji nañ leen dolli bëgg gi te buur jëm nag ca liggéey ba fii yeexul nag bu fa kenn jóge nun bokkuñu ci ñiy barkeelu nun barkeelu dañ ñoo jox ndigal fii liggéey ba jeexul bu sunu tànk jaar fenn furul ca tool ya ànd kook sunu sang bu bii bu nu bokk ci nii barkeelu nan dem nekk ba liggéey ba jeex fu fii liggéey ba nan jàpp nun daal nun waa kër sëñ saaliw ne xel koom gépp mooy sunu sas bu nu jàpp ne Tuubaa xel koom rek mooy sunu sas déedéet fépp fu liggéey nekk ca tool ya nañu xam ne mooy sunu sas kon feeg jeexul du nu fa jógee du nu raf nanu def nan daan def mel ni ku gàddaay jëm ci liggéeyal Serigne Touba bu nu bu nu yokki bu nu dellu ginnaaw di ñaan Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne saaliw mu yàgg fi tawér ndax ku la bëgg a liggéeyloo ci Serigne Touba ku la bëggal ndam da liggéeyloo ci Serigne Touba ku la bëggal ndañ njariñ tey ëllëg da lay liggéeyoo ci Serigne Touba ndokk bi mu joxee ndigal sunu sang bii mu nu ànd koog di ñaan mu yàgg fi tawér jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Saliou barkeb sëriñ Saliou maa ngi yëkkati kàddu di nuyu ak di ziar Serigne Cheikh Mbacke mu sëriñ Saliou di ñaan mu yàgg fi téwér di ko ñaanal njabootam gépp maa ngi am mbégte di woote ci ndigalul sëriñ bi xel Xelcom maa ngi koy yëgal senegal gépp waa réew mi ak waa bitim réew fépp fu ma waaye di déggee maa ngi la yëgal bisub njariñ boobu yi nga xam ni mooy bisub xelkom boobu di tombeek le 23 di tombeek le 24 waaye di ñaan le 23 ñu jóg ñu ñu fekk nu fa ngir liggéey boobu yi ñu man cee tabbi ci ni ko sëñ Babacar waxe ne fa te duñ fa jóg ndeem tànk noppiwu loolu nag maa ngi koy digal ñi nga xam ni ñu ngi aju ci man di cantaakoon yi bëgg ñu yëg ko te xam ni nja bisum njariñ a ngi noonu sëriñ bi daan wootee woote waat na lañ daan amee xel comme mi ngi fi ba tey nanu nanu nanu nam pëste fi te daal di jóg wuy ji boobu boobu boobu liggéey ndax loolu rek ay sunu jariñ bokk na ci li ma gën a sante yàlla sante ko sëriñ bi mooy barab bii ma toog fegoog sang sii ci biir kër Serigne Cheikh jote fi ndigal lii ma fi jote toog ci biir këram gi di ko fi wootee loolu day am na yëg naa ci cant goo xam ni maa ngi koy seereel àddina yëpp ñu ngi ñaan Serigne Cheikh mu yàgg fi téwér Mbàkke dimbali nu rek moo tax mu mu mu mu boole ñu ci waaw moom daal sunu cant ci moom ñu ngi koy yeesal sunu sunu sunu sunu sunu taalube di ko di ko jox sunu bopp àddina ak àllaaxira maa ngi koy ñaan di ñaan mu defal nu ndimbal ba lii mënu digal nu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi ngeen jëf kon mbokk yi bis baa ngoog ndigal laa ngoog nag moom dikkal soo dikkee duggal soo duggee dogul lu tool yi rëy rëy bu sa yoon nekk fas yéene dogu rek soo duggee da ngay jékki-jékki ñun la tool bi yëpp jeex na loola nag moom la ñu woote sëriñ Saalihu ni mu ko waxee ñi ngi ñaan nag képp koo xam ne xarit la wëllëre ànd jàmm la soppe la képp koo xamante ni daa nga sox ci keppaaruk Seex Béthio Thioune ñi ngi lay woo ci liggéey boobu nga xamante ni mooy liggéey xelkom bi ndax ñu yaatu lañu waaye moom ñu ngi ko cëralee foofee itam ci Touba xelkom bu ñëwee bëgg naa ñëpp fekk ko fa loolu lay ñaan tey nañ bàyyi xel neen liggéey lii nga xam ne jox nañ ko cemtaakoon yi lu ñu yàgg bëgg waaye lu ñu yàgg xam waaye lu ñu yàgg miin lu ñu yàgg sopp loo xamante ni moom la ñu déglu saa su ne waxtu wu ne kon tey dégg naa ne leen ndigal gannaaw bi ñu jigee ci ndigal yu yi kon bis baa ngi noonu la 23 ne ñëpp fanaan ni muy ajjuma ba seet di samedi ñu songu liggéey bi bala moo jeex incha allahu taala cantaakoon yëpp ñëw ñu ànd sant noo sëriñ Seex moom sëriñ Saalihu Mbàkke delluwaat ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.